Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul amal nañu ko fii ci Daaru Xuddoos ak daayira yi waaye itam mbooleem seex yi nga xam ne ñoom ñoo aju uh, ci kër uh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim uh, Rasoul duñu jóge ci loolu dañuy ànd yéen ba léegi ci màggalu Daaru Xuddoos édition 2019 fii ci Daaru Xuddoos xam ngeen ni Serigne Cheikh Mbacke kenn la ci njabootu Serigne Modou Moustapha Mbacke moom itam di liggéey liggéey bu am solo ci njaboot gi waaye itam di ko liggéey ci biir dëkk bu sell bi di Touba. niki tey jii itam seen télévision Touba TV dékk na ko micro mu yëkkati ay kàddu ci li nga xam ne moom moo di taarixu màggalu Daaru Xuddoos Pastef bi nga xam ne ni sëriñ Modou Moustapha Mbacke def na ko bi sëriñ bi làqoo mu fexe ba ndénkaane yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon mu daal di koy matale ba mat sëkk ba sëriñ bi mën a ñëw fii ci nga xam ne moom moo di ci pàkk bi ko gënal ci kaw suuf mu mënu fee euh, nekk kon dañuy teewlu sëriñ Cheikh Aliou Mbacke ci kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko sëñ Cheikh Thior euh, ba mu sante buur ñuy julli ci yonent bi Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba suñu yaakaar tey ëllëg mu waral bis bi nga xam ne moom moom bis bi ndax day dëkk boo xam ne tuubal mahruusa dëkk bi mu gënoon a bëgg waaye dafa mel ne jullit bi li mu gën a bëgg ci lañ koy nattu mooy Touba nga xam ne eh, toog na 33 ans de captivité mosu fee mën a dëkk lu yàgg kon nag bis bi euh, li muy commémoré moo di ak dellu seem ci Touba maanaam euh, bi mu génnee àddina ñëw Touba euh, mu nekkoon ci condition yu xaw a metti ci njaareem ginnaaw bi ñu ko yóbboo exil fa la ñu jaarale ko fa mu def près de huit années à l'étranger mu ñëw ñu yóbbuwaat ko beneen exil Mauritanie mu jógewaat fa ñëw ñu isolé ko Thiéyène mu dellu si ñu yóbbu ko Diourbel ci résidence surveillée ba ni mu fi bàyyi ko euh, teewul loola euh, musta euh, yox yoxi benn yoon léppam waxal na ko boppam alalam xelam xam-xamam léppam da ko delloo muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku liggéey na liggéey bu rëy liggéeyal na ko Sénégal te kenn ku ne gis na ne colonisateur bi mi ngi commencé sax ci esclavagiste bi lañu ñu tàmbalee af Afrique bu sowu jant gii ak nit ku ñuul di doomu aadama am na quatorze d'esclavage yoo xam ne arab yi ñooñu ko ñoo ko fi defoon jël doomi Afrique yóbbu leen tasaare leen feneen di leen def li ñuy def rab yi ak ak xar yi loolu leen daan def traitement bu doy waar dañ fi jógee tubaab yi ñëw ñoom itam européens yi ñëw ak le commerce triangulaire loolu kenn ku ne xam na ko ñëw fii jël nit ñi yaa jaay leen jaam ku ci xaw a feebar sax ñu sànni la ci géej gi ñu dem foofu ci coton bi ak ci yeneen États-Unis bu ñu fa jógee yóbbuwaat ko Europe ñooñu amuñu benn leçon de démocratie à nous apprendre wax dëgg yàlla parce que seen colonisation française bi euh, dañ ko def ak une curiosité bu extraordinaire inouïe waaw loolu nag dañ fee jéem a bàyyi seeni euh, culture parce que xaw nañ ko def ci doomu aadama yi boo gisee léegi am ñoo xam ne héros yu mel ne Cheikhul Khadim maam El Hadj Malick Sy maam Limamou Laye ak ñu baax ñoo ñu mag ñoo ñooñu nga xam ne jàmm ji ñoo ko indi Sénégal nga gis ku jóg bëgg a leen a critiquer da ngay xam ne kii produit suppôt la bu ñu nga xam ne ñoo doon colon bi te lañu seen seen lañu la la mag ñi doon résister jéem nañoo effacer l'histoire te mënuñu ko ndax dafa ne ci dënn yi ne ci xol yi mi mel ne alxuraan. ni ko suñ borom garde da ko jaare ci loolu kon loolu moo ci am kon ba mu nekkee ci condition yooyu le Cheikh Mamadou Moustapha fexe ba am intelligence xelam jëfandikoo xelam ba mën ko indi euh, liñ naan ab tubaab tiimu ko mu amul tubaab bi tiim nit ki du tax nit ki dara wàññiku ci moom waaye naxante na ba indi ko tey Tuubaa bu wér a wér wér ci condition yoo xam ne xëpp leen alal xëpp leen lañu bëgg moom indi indi la nga xam ne moom la ko sëriñ bi digaloon te mu doon ko def ci maxtumaam nga xam ne bëgg koo da koy nelawaale sax bëgg ko fàtte benn yoon ndax ku néewa nelaw la ndax héritage bi dafa xawoon a diis kon kooku loolu la jëkk a defal sëriñ tubaa indi ko fii tey li may di xalaat waxtu wu ne mooy Cheikh Mahamoud Moustapha mi nga xam ne moo Cheikh Mahamoud Lamine Baara maam yi sëñ Cheikh Thioro mii tey ñoo bokk waajur lépp soxna Aminta bu indi woon tey Cheikhul Khadim tey ci Touba nu Touba di mel jar na laaj waaye itam tontu laa ngi fi mooy la dafa firndeel la Serigne Touba waxoon ne ilaa qaadallaahu maa lam yakuni wala yakun abadan li mumkin invité naa fii Cheikh Abdoulaye Dieye fii ci mbaar mi booba tabaxaguñ ko màggalu Daaru Xudoos comme màggal gii rek mu ci waxtaan ba di commenter nee na bu njëkk ñoom buñ ma laaj doom magu ndar yi ne ila yaxadullahu maalum yekku ni dañ naan leen doom létti mag kat xale du ko firi waaye yaakaar naa ne firi gi léegi ku njëkk a jot rek mën nga koo firi euh, une un village bu deful bu def euh, un siècle quelque quelques nekk la deuxième capitale du pays te bañ koy sos islam tax yaakaar naa ne maa ngi lay ñaan nga jéem a wëral fu mel noonu ci àddina bi kon si alhamdulilah Cheikh Moustapha def na loolu te eh, la mu sëñ bi la naa loon lépp la loon yéene mu àggale ko te loolu la sumb moo nekk soubassement bi ci lépp ndax eh, defe naa ne ñuy wax tegale bu jubee ndam lu jiitu la moo jub kon alhamdulilah eh, rakkam yi yiitam ñoom ñëpp Serigne tubaab boole woon leen ci déggoo ga ak bëggante ga ba ca waa kër Mamour Anta yi kenn ku ne sa moroom gënal la sa bopp loola ñëw ci ñoom. ba ñu eggalee liggéey bii nga xam ne mooy sumb bii nga xam ne moom la Cheikh Moustapha tàmbali te mu doon noonu naalal Xaadimal Moustapha kenn ku ne mu def tabax boo xam ne kenn ku ne indi nga sa birig teg ci euh, defin woo xam ne ba nga taxawee dafa mel ne tàmbalee ko suñu maam Cheikh Mamadou Fadal ba ci sëñ Mountakha mii kenn ku ne boo ba nga taxawee dafa mel ne sëñ Touba moo roofu ci yow di la wax loo di la jëfloo mu nga ànd koog taalibe yu baax yi nga xam ne lu fi am ñoo ko fi def ñu ànd bokk liggéey bi ba turas bi maanaam patrimoine bi egsi fii tey ba nga xam ne wax dëgg yàlla euh, yaakaar nañ ne forme de euh, d' la boo xam ne mën naa gérer addina bi bu baax a baax ndax ay vertu ak i ngëneel ak makaarimal axlaaq la feese kon alhamdulilah ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. Cheikh Thioro ndax mën nga ñëw dikkalaat ci euh, ñëw Serigne Touba fii ci Touba ak ndam li nga xam ne nii yoonu mujj am na ko si. sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ku tedd gi ñu ñëw fii comme ni ko sëriñ bi wootee ci bis bi nga xam ni ci la Cheikh Khul Khadim ñibbis woon Touba nga xam ni li mu ci waxoon Cheikh Moustapha bari na lool ci ay ndénkaan e ñu am ci njàngat nag njàngat boo xam ni ginnaaw ku tedd ku doon Cheikhul Khadim Euh, dañ ñi bis bi ci la wuy ji boroomam kenn ku nekk war ngaa bàyyi xel loolu ba tax li nga xam ne ci la sëriñ bi nekkoon ak li mu woote woon ñu sax ci bañ a uuteeg loolu ñaareel ba itam mooy Cheikh Manou Sall Karim mi nga xam ni ci ak matam akuk niteem akuk njàmbaaram ak fullaam ak faydaam ci la taxaw ba li sëriñ bi bëggoon mu defal ko ko taxawal lépp ba ndam li ngay laaj tey lislaam am ko ndax yoonu murit mooy lislaam lépp lu génn lislaam bokku ci yoonu murit lépp lu wuteeg lislaam wute naag mbirum sëriñ bi kon suñ ne ndamul lislaam la wax ndax yoonu murit mooy lislaam loolu li ñu ciy jàngati Cheikh Moustapha ci xel mu rafet ak xam-xamam ak xereñamam ak sax ci ndigal ba li sëriñ bi bëggoon mu indi ko tey su ko indiwoon Touba tubaab yi li ni mooy jël sëñ bi génne ko Sénégal yóbbu ko feneen te su boobaa kon li mu doon liggéey lépp xëy na dina jot ab liggéeyam waaye niñ ko bëggee woon kon du am kon bu amee farloom ak matam ba jël ku tedd ki indi ko Touba loolu tey lu ñu am loolu moo ñu ko may fu dëkk bi agsi tey loolu ko fi indi fu yoonu murit agsi tey farlu mu Moustapha moo tax mu indi ko fi ndax ku tedd ki liggéeyal suñu borom ba mu fay ko mu bëgg nisar ñaan yàlla yàlla may ko lépp waaye Cheikh Moustapha mooy ki fondement ñaanu ko sëriñ bi ak liggéeyu sëriñ bi ba tey ñu man cee teg bët kon yàlla nañ ko yàlla fayal jaral na ko lu nekk ci àddina nag ndax sëriñ bi dafa dem bàyyi koog lislaam bi bàyyi koog njabootu boppam bi bàyyi koog taalibe yi bàyyi koog dëkk bi waaye bàyyi koog noon yi lislaam yi waaye leen lu ci nekk Cheikh Moustapha al Karim jëflante na ak yow ba mat gi nekkoon sëriñ bi mu feeñ ca loolee bu njëkk mooy noonu islam yi nga xam ne moom la ko bàyyeel ñu koy gàllankoor ci fànn yëpp rawatina ci néegu yàlla bii nga xam ni mooy jumaa yu Tuubaa bu nekk def nañ ko ngir xañ ko ko ngir gàllankoor ko waaye ci ak matam ak farloom xëy na xaju fi waaye lépp Cheikh Moustapha ànd ko ay rakam ak taalibe yi ak kàngami murit yi ba taxawal ko rakam yi nga xam ne moom la bokk sëriñ bi itam maanaam yar na ñëpp taxawu leen ci seen àlluwa ci seenum yar ba ñu mel ni moom te mooy ndamam bu dee jigéen yi itam kenn ku nekk yar na la teg la ci yoon ba xool ka nga war a àndal mu boole la ak moom. taalibe sëriñ bi itam muy seex yi kenn ku nekk fa nga nekkoon sa waay bu fa bàyyi ko dina ñëw xool ka fa war a nekk mu samp la fa taxawu la fa ba yoon wi mel ni mu war a mel daana wax ni Cheikhul Khadim li tax ma am ndam ci lii mooy ni ma ko wutoo damaa jiital ñaar ci sama kanam bàyyeek nit ñi ñaar damaa jël ak fulla der bi ak wërsëgu àddina ba bàyyi koog nit ñi Cheikh Moustapha Al noonu la taxawale yoonu murid yàlla nañu ko yàlla fayal bi barke Rasulullah alayhi salaam ñoo ngi ndokkeel ñëpp nag rawatina Baye Ahmadou Mahtar xam tey mooy Cheikh ni ñu koy defee Daaru ko defee Guy Mbind moo waaye fokk ñu ñëw siyaar si ko ci loxo Cheikh Ahmadou Mountakha mi nga xam ne mooy Cheikhul Khadim ñu ñaanal ko yàlla guddal fanam may ko wér ba mu àggal liggéey bi bi barke Rasulullah alayhi salaam ñaanal ñëpp itam gërëm leen yéen waa Touba TV gërëm média bi yëpp ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ndax réew mi bari na ay ay ay ay gàllankoor bari na ay faatu bari na ay accident waaye li ñuy wax saa su nekk rek nit ne sellal boppam di sellal jëmmam tey tey julli tey ñaan tey sàkk sarax lu baax li ci am réew kilifa yi nga xam ni itam nit su yilifee dafa war di sàkk sarax kon ñi sàkku ci kilifa yi nga xam kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi ŋànk njaboot gi ñuy génnal njaboot yi ay sarax lu am solo la ci am réew ndax yàlla moo wax ne xus min amwaalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim sarax dafa baax dafay fan bari yu muy fànq ci ay musiba ak i balaa kon waaye lu ci man di xew ñu ngi ñaan yàlla suñu borom musal ci ñëpp aar Sénégal aar njaboot bu barke Rasulullah alayhi wa nawet bi tam mu àgg ci jàmm salaam te ñëpp muuroo ko. su bëggoon naa laaj benn question ci euh, ouverture Massalikul Jinaan gis nañ ne sëñ Sidi Makhtar liggéey liggéey na ci empreinte waaw euh, Masaalikul Jinaan dañ ci sant yàlla suñu borom ndax lépp fekk nañu fi lu ci bari leer nañu Cheikh Sidi Makhtar nekk juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul Khadim bi mu ñëwee mu tàmbali liggéey bi tàmbali bu mu mat sëkk boo xam ne wàllu tabax ba bu doon téeméer la juróom-ñeent fukki dañuy xam ne wax ni ci loxoom la àggee loolu euh, liggéeyub sëñ Touba la liggéeyub lislaam la te xalifa yi sëñ Touba yi tàmbali Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad sax mi nga xam ne Masaalikul moo ko amee woon ci ñaari tali ba Masaalikul Jinaan moo jur tey Masaalikul Jinaan fii ñu ko def loola léggéey yëpp xalifa yi sëñ Touba yi la te xalifa yi sëñ Touba yi seen i mbir akub kaamil ñooy am kaamil nag ñetti xaaj la euh, xaaj bi nga jàng ba noppi ak bi nga toll ci di ko jàng ak bi nga jàngagul foo ci toll da nga jàpp ni rek lii la waaye xalifa sëñ Touba yi noonu lañ demee kon dara génn ci sëñ Touba waaye am na bis bi ñu ko jaglee muy alxames bi moom lañ jagleel Cheikh Sidil Makhtar ni ñu koy waajalee nag incha allah lu ca war ci taxawaay ci présence ci sant ci sargal waajal nañ ko incha allahu ànd ko njaboot yëpp di ci sant nag Cheikh mu Mountakha mi nga xam ne moo ko tànn wax na Alaaji mu ñëw fi ba ñëw na fi waxtaan ak sëñ sëñ Moustapha ba incha allah ñu ngi koy waajal ni mu war a demee ñu yàlla yàlla àgg lañ ci. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne nii mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii ci Daaru Xuddoos bu ñu ñëwee dañu fay daal di jubali ngir amal seen ay ziar yooyu nag bokk na ci bayti bayti nag bu ñu ko waxee di kër gu nga xam ne nii kër gu làmboo taarix la ci lislaam ak yoonu murit ndax xam ngeen ni lu bëri ci ay euh, pàggutee fi sëriñ bi ak ay euh, jëm jëfandikukaay yoo xam ne ni da ko daan jëfandikoo euh, ma ñu ma nga ñu denc fi nga xam ne ni moom moo di ca biir bayti googule ba tax na taalibe yi bu ñu ñëwee dañuy dem barkeelu ci li nga xam ne moom moo di ci bagage yooyu le xool ko def seen ay ziar génnaat daal di def seen ay ziar ci mbooleem Euh, jumaa jeek bërëb yi nga xam ne nii war nañu faa dem ngir barkeelu fa euh, ginnaaw nag li nga xam ne moom moo di ziar yooyu le mag ñi nga xam ne itam euh, nekkoon nañ ci bërëb boobu bi ñu ziaree ba noppi ñu ngi fësal seen mbégte waaye itam di fësal bagage yooyu le ban taarix la am ci lislaam ak yoonu murid waaye itam lan la leen di fàttali jamonoy sëriñ bi kon ñu teelu leen maa ngi tudd Adama Keita Mbàkke laa jóge waaw damay wër jumaa ji ziar bërëb yi après ñëw fii bayti ziare après delluwaat waaw xanaa kontaan rek daal di xool xool nañ doon dundee bu njëkk rek xool bagage yi xool ak ni mu yàggee rek sant daal la def rek dañ ñaan ñi koy teewee ay déwén déwén rek. bayti gii ba si ba ma jógee ci géej gi ba Daaru Salaam Daaru Salaam la waj bagage am li mu doon ànd ak géej gi yëpp ñu ngi nii mu ànd ak moom moo ko Cheikh Rafa bu mu ñib see Daaru Salaam Cheikh Anta ganale ko mu bay fa bagage dal di ñëw Daaru Xudóos gii nekk fi ba siin Modou Moustapha ne xalifa dal di jël bagage indi ko fii fii mooy bayti ku fi dugg sa aaju faju adduna ak alaxira barki Sëñ Tuubaa hey mënuma ko wax ay gaal yi du jeex ndab bi Sëñ Tuubaa lekkee sax mu ndab baa ngi fi ak bagage gaal yi Seex Ibra Faal doon yóbbu ñu fi am pagay waaye mënuma ko lim lépp ni ko nit jafandikoo indi na war ngaa ñëw fii siyaare magalu Sëñ Bamba gii guddi gii guddi gii mooy guddi guddi ga mu jóge njaareem ñu indi ko fi mu ne moo mu ne ko Mbacke mu ne ko su ngeen ma yóbboo Touba dencee ma te gisuma lu ngeen bugg dinaa ko indi Touba sin Modou Moustapha indi ko fii tubaab gi surtout booba tubaab da koy garde ñu indi ko fii denc ko dem Touba bi ne yóbbu nañ Touba mu ne ko déedéet sin Touba ne loolu anka ñu indi ko Touba gii denc ko fii fii mooy Daaru Xuddoos dëkkub Seex Modou Moustapha mooy bayti boo déggee ñu naan bayti fii la fii sëñ Touba wàccan Seex Moustapha fi la ko ni mooy bayti nu koy sant Seex Modou Moustapha ku dëkk Touba war a sant Seex Modou Moustapha ndax moo war a lépp moo indi Seex ba ci biir mooy waa ji bagaati soxna maam jaara bu sa wala xaar yim daan liggéey boog bagaati sëñ Tuubaa moo nekk fii ci biir moom lañuy ñuy si moo nekk ci biir Seex Muudu Mustafaa moo ko fi ku ñëw Touba wala dugg ci barab bi siyaare fi Seex Muudu Mustafaa jërë ngeen jëf mbokk yi ci ziyaar ci lañ daal di ànd ak ci li nga xam ne moom moo jëm ci bis bu màgg bi ak digle yi nga xam ne ni def nañu ko ci bi ñu xëyee mbooleem daaray alxuraan yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi euh, ci Touba euh, ci kuréel gi di rabitul madarisul quran yabal nañu fi ay mboo daara yu takkoo takku fi nga xam ne moom moo di ci kër euh, gi nga xam mooy kër gu mag gi ci daaru xuddoos ngir ñu daal di fiy jàng ay limub kaamil yu takkoo takku yoo xam ne nii yaakaar naa ne lim bi jamono ji ñuy wax ak yéen mën a guñu ko xayma waaye itam njàngum xasida moo xam ne nii du dakk benn yoon diirub ñetti fan yi nga xam ne nii daanaka mooy buñ ñu ñëw suba la màggal gi bis bi ak bu ñu màggalee ba ci suba ga loolu la nag nekk mbir mu am solo kon xam naa dañ leen di bàyyi ak image yooyu euh, dellusiwaat ak yéen mbokk yi. taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii tafa wir ga gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar.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 gis nañ ko itam Cheikh Moustapha musula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn musu ko gis mu bangam taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii taar nañ ko it itam Cheikh Moustapha musula war